benn waxtu toftal na ñeenti simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg ak ponk ci gën a fës jàngoro ji di mbas mi juróom fukk ak juróom-ñeent eh, ci ay cas yu bees moom la réew mi am tey ji eh, ci aljuma ji ñu ne nag eh, ñeent fukk ak juróom wér nañu waaye itam juróom-ñaar ay kaa communautaire la fii ci ndakaaru lañ ko gis itam ak fële ca Touba lu ci mën a am di ngeen dem ca danañu dem ca ministère de la santé santé eh, fekk fa docteur Marie Xemes ngoom Ndiaye ca diwaanu Kaolack Ndangaan yitam centre de traitement bi toppatoo lépp lu jëm boobu la jàngoro eh, ne ñu manga fa waaye nag ngir rek bañ eh, lim bu jéggi dayoo daal di leen di bett tax na ba ñuy toppatoo lépp lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram gis nañu bërëb boo xam ne nee ñu rek bu dañ ko fas yéenee taxawal ba bu fekkee dañoo am ay cas yu leen dab rek ñu mën leen faa def beneen pokk mbokk yi jandeer ca région région bu Thiès foofee itam euh, daanaka fantasiro moo fa am euh, diggante euh, takk der ya ak ñi nga xam ne itam mooy ndaw ya bokk na ci li waral coow la nee ñu ñooy yor jëm ci wàllum wér-gu-yaram ñoo bëggoon a jël ay nit quarantaine leen maanaam ber loolu nag la ndaw ya daal di bañ ba tax na itam ñu daal di fay rek indi coow marché yitam itam parcelle Parcelles Assainies coow juddu na fa bokk na ci la ko waral ñoom jaaykat yi nee ñu liñ leen wax ci bés ñu war koo xëy doyu leen leen ëllëg kaasul sax seeni soxla ca lañ wax nee ñu nag euh, kilifa yi bu yeboo ñu gaaw indi ci saafara ab app daal lañ leen jox lu ko mooy daa ñu wàcc ca mbedd ma dem jaayi euh, faji seeni soxla li ci kaay yéenikaay ma Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxi lu mbokk yi ma ñëw léegi ñu faram fàcce ngoog rafetloo ci ànd bi ak qualité bi ci télévision Futur Média xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy doore ak juróom fukk ak juróom-ñeent di contamination yu bees yu réew mi am ci mbas mi waaye itam euh, ñeent fukk ak euh, juróom-ñeent euh, wér nañu bu nu sukkandikoo ci waa ministère de la santé ñu ne itam ay cas communautaire am nañ ci lu toll ci juróom-ñaar dañuy teewlu docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye directrice de la santé yoroon kàddu bés bi. ci juróom-ñetti ak juróom-ñaar fukk ak ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko juróom fukk ak juróom-ñeent dellu si nañu am doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk ak ñaar mooy li ñuy wax contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeyukaay yi ñu ngi koy seet di ko saytu juróom-ñaar moom lañuy wax cas communautaire mooy yi nga xamante ne kenn xamul ku leen ko wàll ñu ngi ci diiwaan yi tey Liberté 6 am na benn yoof am na benn Géejawaay am na benn sàngalkam am na benn tuubaay itam am na ñett ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ñi nga xamante ni tëdd nañ ci lalu hôpital yi bañ leen seetee gisatuñu feebar bi gisatuñu doomu yaram euh, doomu jàngoro ji itam ci seen yaram wër nañu juróom-ñaari cas ñu ngi tëdd ci service réanimation yi hôpital fan ak hôpital principal ñi nga xamante ne ñoo des ca hôpital ya seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan aywa ñu wéyal xibaar yi ba tey wax itam ca euh, foofe ca ministère de la santé fekki fa Alhassane Ba Alhassane ñoo ngi lay nuyu Alhassane Faty Dieng ñu ngi lay nuyu di la di la ziar ci ajuma gi di nuyu mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média euh, xayma gi nag euh, lecture bi ñu mën a am ci li nga xamante ni mooy chiffre yu tukkee euh, fii ci makkaanu jëwriñ ji nga xam ne moom moo yor wàllu wérgu yaram li ñu nemmeeku rek mooy que ni li nga xam ne moom mooy ci li ñu jot ci lim ci wàllu ñi nga xam ne ñoom ñoo am doomu jàngoro ji buñ ko méngaleeg li nga xam ne moom lañu am démb dañuy jàpp ne même chiffre la même nombre la ñu am ñu gis ne nag li ci uute gi mooy li nga xam ne moom mooy Euh, ci cas communautaire yi démb juróom-ñett tey juróom-ñaari kaa communautaire la ñu am comme ni ko docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye waxee léegi euh, fi nga xam ne nag moom mooy Yoof euh, fi nga xam ne moom mooy Sangalkam ca Touba am ñett fële nga xamante ni nag moom mooy Liberté 6 am kaam également ci wàllu cas communautaire yi ñu gis ne également fële ca Touba ñetti kaa la am ci li nga xamante ni mooy cas communautaire yi fatidien gis nañ ne nag li nga xam ne moom mooy ci cas grave yi am na yokkute démb xam nga juróom benn la ñu yemoon ci cas grave yi nga xam ne signalé woon nañ ko tey ji nag jàpp nañ ne juróom-ñaar ci lim euh, la ñu jàpp ñoom ñoo tëdd ñu nekk situation boo xam ne ni dañ jàpp ne seen cas euh, nekk na cas grave ci loolu nag Fatou Dieng jàppal ni tey ji euh, Sénégal dépassé na junni ak juróomi téeméer ci li nga xam ne moom mooy ci lim ndax gis nga ni li ministère bi joxe ci wàllu lim ñu ngi ci junni juróomi téeméer ak juróom fukk ak benn ci li nga xam ne moom mooy cas yi ñu enregistré fii ci réew mi bi mbas mi duggee fii 2 mars ba léegi ñu gis ne nag ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu wér xam nga Sénégal mu ngi ciy def euh, fan yi taux euh, bu am solo ci wàllu euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo wér ci doomu jàngoro ji ndax boo xoolee démb rek ñu ngi ci juróom benn fukk ak juróom-ñeent tey ji ñu ngi ci ñeent fukk ak juróom-ñeent mu doon loo xam ne tamit jàpp nañ ne am na solo ba tax na yóbbu na lim ci ñi nga xam ne ñoom ñoo wér ci doomu jàngoro ji Fatou ci juróom benn téeméer ak ci li nga xamante ni moom mooy juróom benn téeméer ak fukk ak benn ci ñi wér ci doomu jàngoro bi mooy li nga xam ne euh, prise en charge euh, li nga xam ne moom mooy euh, extra hospitalière yi tàmbali na ci bërëb yi nga xam ne Thiès ñu ngi ko doon wax ca base aérienne base armée bi wante itam fii fi nga xamante ni moom mooy hangar pèlerin yi jàpp nañ ne tàmbali na ñi nga xam ne nag ñoom ñoo am li toll ci lim juróom fukk ba jëm ci suuf ñoom lañ fay jël en charge ci ñi nga xam ne ñoom ñooy dul cas yu grave yi moo mu nekk cas yoo xam ne wala boog asymptomatique am nañ doomu jàngoro ji deful benn manifestation fàttali rek mbokk yi ci li nga xam ne moom mooy digle yi ñu tënku ci ngir fexe nag ba jëlee fi coronavirus wi nu mu gën a gaawee Faty Dieng Alassane baax la woon ca ministère de la santé ñu sant ko bu baax gërëm ko naka noonu itam équipe technique bi ñu àndal di def boo boobule liggéey ca ministère ba ñu wéyal xibaar yi ba tey desandi ak mbas mi ca diwaanu saalum moom euh, taxawal nañu rek euh, ab centre euh, nee nañu am nañu centre boo xam ne dañu fay faj ñëpp képp ku jàngoro ji laal waaye itam dañoo bëgg rek daal di taxawal beneen sit boo xam ne day tax ñu bañ a am mbetteel bu ñu ko waxee nag nee ñu dañoo bañ rek xëy ne euh, sotteeku ci seen kaw te du xam fu ñu koy def moo tax itam euh, ñu taxawal beneen bërëb ci noonu dañ ci teewlu euh, docteur Bassirou Ndiir nag moo yore mooy chef du bureau régional surveillance jëm ci wàllum épidémie yi foofee ca diwaanu Saloum ay kàddoom ki ko taataan di ki ñu fa toogal Ibrahima Diame ànd ci ak Fally ci caméra bi. bi juróom-benn ñoo ñu am feebar bi ñaar dañ leen yóbbu njëkkoon yóbbu Dakar. fa lañ dem ñoom waaye ñeent ñi des moom la leen tey fii pour faj leen fii ci Kaolack ci hôpital bi waaye teewul ñu ngi xalaat tamit bu demee ba affaire bi ëpp gën ñu ëpp doole gën a bari ñoom am feneen fu ñu leen faje foo xam ne du nekk sax ci hôpital feneen lay nekk ba loolu tax na am na fu ñu gis fii ci sing booru sing sing foo xam ne mën nañu fa mën nañ leen fa mën a di faje muy li ñu muy centre réinsertion bi nekk foofu ba loolu tax na sax bu subaa dinañ fa dem xool li manque ak lu ñu fa war a defaraat yëpp pour mën leen faa faj. waaw dañuy dañuy dañuy fagaru rek dañuy fagaru pour bu ñu amee yeneen cas euh, yoo xam ne lu ñu leen mën a faj hôpital ndax lal yëpp am na malaat ñu dem foofu yóbbu leen foofu faj leen fa comme ni ñu leen doon faje biir hôpital benn rek lay nekk. Hmm. waaw équipement bi dina fa nekk équipement bi dina fa nekk lépp dina fa nekk moo tax bu ñu demee suba boo xool li fa manqué yëpp ñu xool. daal di koy laaj ñu indil ñu ko ñu complété ko comme ça bu ko defee bu ñu amee cas rek mën ko faa yóbbu. waxoon nañ leen ko ci bopp xibaar yi dañu doxantu ba Jadeer nekk ci département bu Thiès foofee dëkk bu ñuy woowee coor foofu nag daanaka moo am nag coow lu diggante ndaw yi ak takk yi bokk na ca la ko waral wala bokk la sooxee euh, bile coow ñi nga xam ne nag ñoom euh, ñooy toppatoo lu jëm ci wàllu mbir gu yaram ca diwaan ba ñoo jëli nit bëgg leen a ber ndax seen njortu dafa ñaawoon ci ñoom ak mbas mi loolu nag ay ndaw yu dëkk ca dëkk ba ñoo ne woon du ci dal euh, ba tax na sax préfet ànd na ak takk der yi ñu dugal ci seen loxo ngir coow li mën a fay ca Thiès Cheikh Anta la ñu fay fekk. muy mbir mu doy waar amee fii ci dëkk bi ñuy wax Tor nekk ci commune bu Jandeer fii de ginnaaw bi ñu nemmeekoo ne dafa am ñoo xamante ne dañoo am doomu jàngoro ji ñu amee ñeneen ñoo xamante ne njort nañ ñu laale ci. si la kër docteur. ak ay takk der ñëwoon ci dëkk bi ne dañ leen fas yéene jël yóbbu leen ñenn ci ay ndaw taxaw ràngaayu fipp ne kenn du fi jóge jàppante bu tar ci diggante askan wi ak takk der yi dëkk bi ñu njëkk njëkk muy ca dem ba ma àggee kenn ngi yëngatuwul yóbbu nañu nit ñi te bant mais toor bi ñu ñëwee bi nga xam te ne mooy juróomi téeméeri nit ñi ñu war a yóbbu ci dëkk te expliqué woon nit ñi lu ko waral dana leen jaaxal chef médecin bi dëkkul Jandeer kon yoree liste 500 personnes ci benn village am na ku ko ko jox ndax ku ko jox ni ñu ko joxe dëgg la ndax moom fi mu jaar ndax fi la war a jaar parce que lan mooy tax ñu ñuy ñuy quarantaine nit ñi mooy dañuy wax ni boo bu ñu yaakaaree ni am nga feebar bi kër goo dëkk ñu quarantaine ñooñu ñëpp waa léegi moom mi doon joxe liste boobu ñu ni dafa am ku ñu ku ñu dafa am feebar bi si biir këram lan moo tax mu joxe ñëpp seen i tur bàyyi këram booy yi nag ni du ñu dem te ki ko ki ki joxe liste bi ayib bi mu wax nit ñi mu ngi si moom kon nag day dem mbaa dem. takk der yi sax dem nañu ba di leen yoor ay grenade lacrymogène waaye taxul ndaw yi dendu ginnaaw ginnaaw bi fi sous préfet bi dikkee andi ci ak maire bi si la ndaw yi doog a daal. bi ñuy toll bayax lañ ma wax ni ma préfet bu Thiès ak sa préfet jël ñu matuwaay ba ñu ngi ànd ak force de l'ordre yi di ñëw mais li ma leen di ñaan ñoom bu ñu ñëwee bu leen sànni nag ñoom xeer bu leen leen baare. bàyyi leen leen ak seen force de l'ordre ñu dem génn ñi ñuy génne dem seen yoon. jamono yi lu toll ci juróomi téeméeri nit ak lu teg de jëlee nañ leen ci dëkk bii di Toor nekk ci Jandeer ñu tas leen ci hôtel yu bëri ci diggante Thiès ak Mbour dinañ leen fa tey xool ndax yor nañu doomu jàngoro ji wala déet. Cheikh Anta Diop ñu sant ko gërëm ko desandi ba tey rek ak euh, mbas meek euh, professeur Daouda Ndiaye moom rek euh, àdduna ci lu jëm ci jëfandikoo loolu ñu dippee artemisia loolu nag ngir xeex mbas mi ñoom nag dafa mel ni ànd nañ ca lu ni mel ci am ndaje la ñu doon amal foofee ca daara ju kawe ja moom professeur Daouda Ndiaye ci teewaayu kii di ministre bi di Cheikh Omar Anne la woon ak itam Cheikh Diop. ginnaaw ñett ci ay bés nga xam ne daal ni ñuy door développement bu protocole d'essai clinique ci li nga xam ne moom moo di artemisia ñu toll ci ñaar fukki chercheurs yoo xamante ni jamono yi taxaw na temb ngir rek daal di dakkal virus bile waaw artémisia liggéey nañ ci parce que liggéey nañ ci au plan in vitro ci laboratoire et puis xam nañ ne également dafa bokk ci garab yu faj sibbiru gaj farab euh, bilharziose ak virus donc ce qui fait que aujourd'hui am nañ ci yaakaar bu doy li ñuy xool nag mooy est-ce que am amul toxicité lool xam nañ ne am na ci amu ci mais am na leneen lu ñu ko booleel parce que du bii rek la ñuy jël mais dañuy jël également yu jóge suñu réew moo tax yaakaar nañ ne am nañ ci xel mu rafet bu ñu defee li ñu war def incha allah dinañ ci am njeexital te dinañ indi également ndam Sénégal ci lu bari. loolee tax na nguur bu Sénégal taxaw teem ngir daal di teg bépp matuwaay boo xamante ni dina mën a tax wàllu recherche yi mën a jaar ci yoon. dina tax tey ñu accéder ci moyens yi nga xam ne moom mooy disponible ci xeex bi moyens yi bu ma waxee waxuma ci xaalis bi loolu même bu ñu dajalewul woon mais moyen yi mën naam am tey gis naa ne ñoom seen demande bi gën a rëy moom ñoom virologue ak pharmaciens yi mooy nañu accéder ci données yenn données yi ak ci yenn sources yi pour mun a continuer seen liggéey parce que loolu dafa am importance loolu defe bu ñu paree mooy li ñuy commencé. lépp lu soxal wàllu paj sa bopp doon loo xamante ni euh, chercheurs yi de euh, ñu ngi koy bàyyi xel ba tax euh, professeur Daouda Ndiaye di ñaax askan wi. xam nañ ne médicament mën na baax mais mën na lor donc ñun suñu role moo naan leen lii baax na lii baaxul dose bi lañ ko war a utiliser fekkee dañ ko analyser étudier pour population bi jël li nga war a li mu war a jël parce que médicament boo jël te waroo ko jël poson lay doon. lancement bu observatoire national riposte Covid 19 nag dal nañ koy amal mu nekk ay chercheurs yoo xamante ni. taxaw nañu temb ngir lawte fokk virus bile mën ñoo abal fii ci mim réew Cheikh Diop la woon ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci euh, leneen muy marché jox ca Parcelles Assainies commerçant yi nag euh, ñoom daanaka déggootuñu ak ña jiite boobu lee gox bokk na ca la ko waral waxtu ak bés yi liggéey yi wàññi ne ñoom euh, fukki waxtu ak ñaar kott ci benn ay bés mënta kaas seeni soxla ba di ko faj tax na itam ñu taxaw takk seen digg joxub àpp yooyee kilifa nee nañu gaaw artu ci mbir mi Abi fay moo di Diop lañ ci àndal. marché Dior jaaykat yi mer ba futu la ñu def fii gannaaw ba nga xamante ni tamit ab ndogal wàcc na aaye leen ñu ibbi seen cantine nii ñaari fan lañ ci am droit bi leen ndogal doon na loo xamante nit gënalu leen benn yoon mu doon loo xamante nit day gàllankoor seen koom. ñun rebelle wuñu xeexuñu yàquñu mais bu gars yi réagirul ba lënd ñun ñi nga xam ne ñoo canaliser ful bi ñu déggal ñu toog. ñun dañuy dégager suñu responsabilité gars yi jël seen responsabilité ñoom xam nga lan la ñu wax bu ñu déggul kenn lënd dañuy ñëw ubbi marché bi liggéey parce que seen droit la nous avons dañu am droit dund. coronavirus bi waral li ni mel jaaykat ya nekk ca marché Dior ñoom la ñuy bëgg rek moo di autorité yi indil leen seen ndimbal ci seen jafe-jafe gi ñuy dund. ñun matadi wuñu ba ñu ñuy fekk di ñu ne raxasu leen cantine boo fi dem am na gel bu ñu fa teg. non seulement entrée bi dañ dañ fa teg ay pôle pour taxasu ñun ñoo jël suñuy gel teg ko ku ñëw parce que man sama mbopp bëgguma ku ma contaminé. marché Dior bu Parcelles Assainies la fa nekk ci cantine toll na ci ñeenti téeméer ku ci nekk ca jaaykat yooyu da nga joxe weer gu jot junni loolu yëpp boo ko dajalee ci weer bi dana mat ñaari million ci suñuy koppar ñoom ñooñu nga xamante nit ñoo fay nekk di daan seen doole la ñuy bëgg rek moo di ñu jàppale leen. ca la ñuy contribuer. ay taxe journalière bi ñu imposé ñun du par jour lañ koy fay par mois lañ koy fay ça veut dire que mille francs par mois nga nga multiplier ko par 400 cantines multiplier ko par 12 mois ñun budget Moussa Sy oh, dañ si contribuer à hauteur de 24 millions chaque année. autorités yi ak commerçant yi ca marché Dior ñoom bokkatuñu benn yoon nañuy waxe gannaaw ba nga xamante nit ndogal wàcc na ñeel itam daan coronavirus gi marché gi dañu koy tëj mu doon loo xamante nit tere na leen nelaw te ñoom seen activité doxatul bi fay ñu sant ko euh, bu baax gërëm ko wax itam ci leneen muy kabine d'avocat yi di maanaam euh, liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo yëngatu jëm ci wàllum yoon rawatina euh, ñooñu ñuy dippe ay layookat ne ñu nag fi mu ne nii mbas mi laal na leen bu baax a baax bokk na ca la tax ñu wax ko ne ñu daanaka léeg-léeg mu miti lool ngir ñu fay rek ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci cabinet bi maître Pape Leyti Ndiaye Alhassane Ba ak Youssou Baro ñoo tase ak moom. ordonnance bi dafa nekk li nga xamante ni rek dafa dëggal li nga xam ne moom moo tënk suñu yoon ci wàllum liggéey jàpp na ni mooy fexe ba dooleel ki nga xam ne mooy liggéeykat bi diggam ak ki koy liggéeyloo nee na boo xoolee nguur gi moom la jiital ci dogal bi nga xamante ni moom la jël. législateur bi maanaam ki nga xam ne mooy dogal gouvernement bi nee na moom tànn na ni mu ngi gën a fësal faralaate bi muy faral ki nga xam ne ki mooy ki néew doole farlaate boobu mu nu mu jamee mooy benn dañu ni tant mbas maa ngi fi. tere nañu nit mu dàq liggéeykat n'est-ce pas bu mooyee ki nga xam ne ki nee nañ dafa def faute lourde faute lourde mooy koo xam ne faute bi mu def daal kenn mënu koo baale. secteur yëpp ci jamono ji ñuy dundee nu métti lii di mbas mi justice bi itam naka noonu activité judiciaire yi mu mel nii dafa taxawandi boo xoolee cabinet avocat yu bëri ci jamono ji télétravail la ñuy def ñenn ñi ñeneen ñi sax nee na bu fekkente ni tëjuñu moom bâtonnier bi ci loolu sax muy sàkku nguur gi gastu leen. lii nga xam ne lii moo wokk ñëpp. ci ordonnance numéro 01 2020 bi moo ñu xuri donc di coup euh, nit ñi dañuy obligé libérer seen personnel di obligé réduire seen activité obligé di toog seen kër di li di fa war a liggéey li ñuy wax télétravail donc comme activité boobu wàññeeku na ça veut dire que effectivement revenu yi wàññeeku na ba tax na ñun li ñuy baam wax di ko baam di ko baamtuwaat mooy itam li nga xam ne dispositif bi nga xam ne moom la état bi taxawal te nga maam loolu wax nañ ko fii dinañ ko wax feneen am na sax feneen fu ko wax ba pare donc dispositif bi nga xam ne bi moom la état bi taxawal alors dispositif boobu dañ ci war a boole avocat yi. ab ndimbal bi nga xam ne nag dana ñëw ngir fexe ba jàppale leen ñu mën a supporter bu baax a baax li nga xam ne moom mooy lu tukkee ci mbas mi te ñu koy dundee nu metti Alxasan Ba ñu sant ko gërëm koo wax ba tey ci mbas meek diwaanu Saalum foofee itam eh, ñaari laaj yu samp wala boog ñaari mbir yu soxal eh, lenn bokk na ci eh, gune yi nga xam ne dañoo ne ci mbedd yi wala boog dañuy toltolaan ak itam ak leerlu rek ci séddale dund bi jógee ci nguur gi jëm ci askan wi loolu nag kii di député bi di Awa Gueye moom la mu ca gis rek mooy mu ngi sàkku ci ñëpp nga la ñu fexe rek ba indi transparence maanaam lépp leer ci euh, joxe bi euh, ba ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yelleel ñu mën a jot lañu moom moom euh, soxna si nekk nag ci pencum ndawi réew mi kàddu yi mi ngi ko yëkkati ca Saalum ga mu fekk baax ci ndimbal lu mu doon joxe ci teewaayu Ibrahima Jàmme la woon ak Faly Gueye elwaanu taalibe yi ak taxawaalu bi ñuy taxawaalu ci biir mbedd yi ba tey dëgg la ci biir commune bu Kaolack donte nag kilifa yi waxoon nañ ko waxatiko ko ne daañu def lépp pour téye leen ci seeni dara waaye ba tey France loolu nag interpellé na bu baax a baax kii di honorable député Awa Gueye mi ci def taxaw seetlu yokk ci ne mën na am ñu saafara ko lu yàggatul dara ak waa ministère de la femme et de la famille. ndax xam nañ ne taalibe yi ñoom dañoo exposé ndax tout le temps dañuy nekk ci mbedd yi. ministre de la femme et de la famille di def nag programme retrait des enfants de la rue xale yooyu ñu génn leen ci mbedd mi waaye itam mu am programme bu am solo boo xam ne dafa ci woo jigéen ju nekk mu ne des masques pour sauver des vies contre le coronavirus les femmes se mobilisent. responsable politique bi la ci quartier Gawane def tamit taxawul seetlu ci coono bi nga xamante ni askan waa ngi koy dund jamono ci la ndax mbas mi la loolu waral muy ñaax rek nu ñu mën a def pour distribution ndimbal bi la ñu jagleel néew di doole yi nu ñu mën a def rek ba mu leer ñu def ko. séddale ndimbal gi nag yaakaar naa ne monsieur le président de la république li mu ci def dafa leer nañ mu ne bu ñu koy def nañ ko def ba mu leer nañ. ñu jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yeyoo ci kaw loolu ñu def benn sélection bu njëkk jëmale ko ci li ñu tuddee registre unique nationale le registre national unique beneen bi nag ñu war ko def ciblage boo xam ne comité ba gouverneur préfet maire chef de quartier bàjjenu gox président ASC e ñoom ñëpp a ca nekk war a mën a waxtaan ba juboo ba xam ne ñii kat soxla nañ ko ñu yëkkati ko teg ko seen loxo. moom nag yemul rek ci ay wax ndax dugal na loxo ci poosam andir contribution bu am solo jëm ci wàllu ceeb suukar ak diwlin jagleel ko askan wi fàttewul tamit ay masque de protection. aywa Ibrahima Diame ñu sant la gërëm la dem fële ci diwaanu Mbour ne ñu nag ñoom quatre cas ñeenti cas communautaire am nañ ko euh, ci lu matul benn ay bés ba tax na rek juróomi junni euh, ci ay soxna nekk foofee ci département bu mbuur boole nañu euh, seen doole doon benn say ngir mën a xeex jàngooro ji maire ab Malicounda it dugal na ci loxoom ndax lu toll ci ñeenti junni ci ay masque jox na ko juróomi dëkk yu nekk ca commune am Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye lañ ci àndal. ak cas communautaire yi ni mu bëree léegi tax na ba kilifa yu nekkee ci mbuur daal di jóg gën baral xeex bi meeru Malicounda ci la daal di joxe lu toll ak ñeenti junni masque ci juróom ay village yu nekkee ci communam diggante Sinthiou Mbadane Pël Sinthiou Mbadane Séeréer Mbuleem ak Gagnan ak Sidi Bougou nekk ay village yoo xam ne yi nag dañoo dend ci benn euh, dëkk bu tudd Mburoox te ñu amoon fi benn cas communautaire ñu ne nag nañu ñëw euh, jox ay masque dëkk yooyu yëpp. ñu defar lu toll ci 4000 masques ñeenti junniy masques yoo xam ne dañ ko bëgg a séddale population yi pour que véritablement képp ku ciy génnati sa kër. nga mën ko sol. soxna yu nekkee département bu Mbour ñoom it di dugal seeni loxo ci xeex bi li ni mel sax a tax ñu génnee ay millions yu tàkku ngir faggandiku jàngoro bi. mutuelle d'épargne et de crédit des femmes du département de Mbour la yàlla may nañu 5000 femmes yoo xam ni département bi yëpp ñoo ko bokk mille femmes yooyu nag dañu takku tey ñu dajale sunu dërëm ak sunu 15 génne million jox ko préfet donc administrativement buñ ci war a dugal sunu loxo ndax ñooñu tey dañuy soxla ndimbal dañuy soxla essence dañuy soxla leneen ak leneen ñu a ci jigéen ñi jigéen ñi ni fi denc ñun nañ ko jël au lieu ñu def ñu assemblée ndax dañuy bañ dajaloo bi ñu génne ko ne ne leen nibalee diwlin ak ceeb ñu yóbbu ko ci kër yi pour mën a sensibiliser quartier yi juróom-ñetti million ci fàttali département bu Mbour am na lu toll ak fukk ak juróom-ñaari nit yu am coronavirus fukk ak ñett ñi tane nañu ñeent ñi ñu ngi leen di faj fi mu ne nii aywa Abdou Rahman ñu sant la gërëm la addu ca Sigicoor ak mereb Sigicoor bi ne euh, ndongo bu ne euh, ak itam jàngalekat nekk foofu ca moo xam daara yu diggu doom yi wala euh, sax yeneen yi daañu la jox masque bokk na ci nag itam tax ñu wax ko mooy dogal bi nga xam ne nee ñu bu ñu ci deltuwul gannaaw muy dellu ci daara yi ñaari fan ci weeru juin moom Abdoulaye Balde nag lu jëm ci masque yooyu juróom fukki junni masque sax war na ko jox chef de quartier waaye ni mbootaay yu nekk foofu ca Sigicoor ga mu jiite ay kàddoom Boubacar Diassi ak Lamine Mandian ñoo ko taataan ngir yéen. dinañu commandé at yeneen cinquante mille masques yoo xam ne association internationale des maires francophones te maire maire Paris Anne Hidalgo dirigé ko dinañu jàppale pour que ñu defaraat yeneen masques donc masques yooyu bu soobee yàlla ko jàggal en priorité élèves yi parce que léegi école ubbi école ubbiwaat donc dañ koy jox établissement yi mooy corps enseignant bi administration bi ak élèves yi. pour que ku nekk mën a ku war a ñëw si biir école bi ñu ngay mën a sol masque mais aussi du ñu yem si loolu dinañu sobutri avec les services d'hygiène l'ensemble des écoles primaires de la commune mais aussi des établissements d'enseignement secondaire et supérieur parce que ñoo ñëpp si vrai que ñun suñu compétence si enseignement élémentaire la yem mais je pense que ñoo ñëpp suñu biir euh, ville lañ nekk donc dinañu fekk texe de telle sorte que ñu mën a mën a saupoudrer lépp établissement bi fi nekk aussi ñu jëbbal ay masque bépp euh, euh, koo xam ne ndongo daara ou bien enseignant boo xam ne mi commune bi bu ko defee bu ñu ubbi école yi que ce soit dans de bonnes conditions de sécurité. aywa ñu wax ci liggéey yi aju rek euh, ci gën a yaatal station d'épuration ba nekk ca Cambérène ñeen ñu ngi koy wéyal ndaam basman ci réew mi bu nu sukkandikoo itam ci directeur général bu ONAS amaloon ak tukkim nemmeeku ci bërëbu liggéeykaay ba ñu teewlu Lansana Gani Sakho. HLM la ñu commencé liggéey bi xool collecteur an fan bi nga xamee ne dafa daanu woon dafa màbboon euh, naka lañ koy liggéeyee loolu pare na féeti na boor mais li ëpp solo léegi mooy ñu commencé liggéey bi ci ensemble collecteur bi yëpp euh, balaa at bi di jeex loolu ñu ngi ciy liggéey buñ ci yàlla jàppale defe naa dina antu bii nag beneen la aussi buy permettre ñu yokk bu baax a baax euh, capacité traitement station opération bu Cambérène Euh, day jóge vingt mille dem ci à peu près cent mille mètres euh, defe naa loolu bu sottee euh, ndakaaru affaire assainissement ci gox yu bëri dina faju am na beneen aussi boo xamee ni ci projet bi la bokk mooy defe naa yéen ñëpp xam ngeen ko waa Cambérène dañu mës a ñaan pour émissaire bi ñu jëlee ko fa projet boobu tamit ci lii la bokk ci yoon liggéey bi septembre 2021 la waroon antu mais ak jafe-jafe yi xëy na mu weesu date boobu may profité rek aussi di sànni nit ñi pour mesure barrière yi ñu topp ko ci pandémie bi parce que feebar bi amul vaccin amul garab li ñu ci mën a génne mooy daal lépp li nga xamee ne gouvernement bi tënk na ko ci affaire mesure barrière ñu mën ko respecté. yegsi nañ ci ponk bu mujj bu li ci yenn kaay Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf benn dëkk ñaari gaar di ca kees fa la raay ba téenee dëkk ba bu doonuk saxaar la Le Quotidien nee nañu tegewul ci raay bu baax bi ubbil yenn kaay bi ñaari nit ya faatu ca kees te coronavirus ba faat leen mu di imaamu jàkkay buntu dépôt ak bàyyi sëriñ ci am mi fa faatu keroog talaata ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk lu leen faat mu di coronavirus bi ñoo bokk fu ñu faatoo mu di ci seeni kër teg ciit ku ci faatu njaboot gi nga bàyyi ginnaaw dañuy jéebaane ak càggante gu ñu ne moom la waa kër docteur wane foofee ca kees mu di imam be ki mujjee faatu journal Le Quotidien xamal nañu ne duñu woon ay gone kii juróom-ñett fukki ak juróom-ñett la amoon ka ci des téeméeri at yu manqué juróom-benn maanaam 94 ans 190 malades téeméeri aji way wopp ak juróom-ñeent fukk journal Libération nee nañu faj nañu leen ba ñu wér ba génn l'hôpital ci diirub ñeenti fan juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci ñoom ñibbi nañu fa ñu jóge woon fekki seeni njaboot ñii Tamba ñii Kolda ne li maye loolee pexem docteur di jarawut di niwaa kineen gi bokk na ci coronavirus bi ku mu dal yaa cib coono ku ca wérit yaa ngi cib coono li koy firndeel mi ngi ci xët mu njëkkal observateur ñu ñu mas a quarantaine ba yeewi leen ñoo xëyee jooyu xool ci journal bi nee nañu fa ñu dëkk seeni mbokk ak seen dëkkandoo dañ leen di daw ak di leen sajji xef ndax li ñu leen mas a quarantaine journal bi waxtaan na ci ku ko dund ca Thiès ku ko dund ca Louga ak it ku ko dund ca Touba Touba googee hôpital Ndamatou ba fa nekk journal Source A ngi ñuy ne ki njëkk dugal coronavirus bi ca diwaanu Jurbel fa la jógee premier cas bu Jurbel Diourbel benn agent la buy liggéey ci hôpital bu Ndaamaatu moom waa ji jot naa am contact ak juróom-benn nit yoo xam ne ci diggante dem boutique baak dellu hôpital la amee ñoom contact te it ci week-end bi ñu weesu ba muy ñibbi Diourbel motom la ñibbee wala na jàngoro ji benn doomam bu jigéen ñi mu amal contact yépp mu jabaram ñaari doomam yu jigéen ak yeneen ñaari xale yu jigéen ak lenn ci mbokkam journal bi nee nañu ñëpp la ñu quarantaine démb ca Mbàkke ba mu des ndayi waa ji ak bàyyi waa ji ndax ñoom kenn confiné wu la Sénégal nañu waajooje mu di agent de santé bi li ko tey ndax dafa

ji li ñu ci ñu ci amee du benn ngir régler loole nag moo waral gouvernement bi teg na benn programme bu tegee ci ñeenti ponk Sud Quotidien ñu président Macky moo xëcc seeni nopp ngir ñu nekk nit fëgg ci taabal ji waxi échec ci mbirum retrait de la rue lay bañ a dégg xale yeneen mu di xale yi war a dellu ci l'école yi ñaari fan ci weeru juin Sud Quotidien nee nañu mbir moomee njawang ci desandew xambe ne nu ñuy delloo ci classe yi ci jamono ji nga xam ne virus bi dafa lëmbee réew mi loolee mooy coow li ñu war lijjanti la Sénégal dañu jàngalekat yi ci réew mi ñu bari ci ñoom école bi ñu bëgg a ñaari fan ci weeru besoin seenum xel dalu ci ñi boole xel mu ñàkk dal ak fit wu toogul anki dina kay nañu ñoo di baykat yi ci réew mi nu ñuy lijjante campagne agricol bi ak mbas mi ne jasaar ci kaw nit ñi loolee moo leen togg fit na teg leenu jaaxle enquête mel ne ku naan ñu ñoo yey tiit ñoo yey jaaxle ndax gudd yu ñu toll sàq yi nee na pëng ba ne wëyëng dara nekkatu fa nawetub daaw bi taxu koo neexee noone dem béeg dikk bi wàññeeku na nañu yokk ba ci journal Grand Place mi xëy di laaj lu tax état bu Sénégal fu lam li waral mu di ko laaj moo di état d'urgence bi ci réew mi bari nañu ko dëkkee jalgati te dara leen ci fekk VIP di borom dara ji yi doon organiser mariage ñu tegoon lan loxo yéenekaay bi nee nañu bàyyi nañu leen bàyyi bu gaaw ci jamono joj tëj ni ñu fi benn taximan weeru lëmm ndax nee nañu dafa jalgati jàpp nañu ay jeune ca ñetti mbaar yóbbu kaso ñu toog fa di xaar seenub àtte ñi doon céetal ci digg état d'urgence bi ñu bàyyi leen ñu dellu seeni kër mu di lool li ci grand place gis mooy mbirum kumba am ndey ak kumba ñàkk ndey guy dem sax ba yàq liggéeyu takk der yi Mohamed Ndiaye ñu sant ko gërëm ko sant leen yéen tamit gërëm leen ci safo bi ak kóolute bi rédaction ngoon ci kàttan yàlla dina fi teew desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias aljuma mubarak